Eh, soxla bu dee ñaar daa fekk wér am ba pare waaye bu fekkee ne da moom beneen soxla bu ñëw maanaam benn soxla nga am mooy wéradi mais moom feebaru Karim la am. feebaru Karim waaw waaw. nan karimatologie lañ koy wax xaw ma xam naa daal scientifique ñu wax ma. mais moom moom dafa insulter l'avenir parce que dafa mosoon a toog ne je ne serai jamais derrière cette gosse te loolu mooy insulter l'avenir pourtant. tey su doon nekk PDS tey di fa teg tey Bara Gaye mooy ñëw nekk uh, ci kanamam. Mm-hmm. te pourtant Bara Gaye rakk ci la ci Karim mm-hmm. su may wax mooy mm-hmm. uh, loolu ko waaw waaw fu may wax mooy moom dama ko nangul loolu parce que lu problème am mooy Karim moom loolu ko feebar moom dañ koy ñëw buñ ko kiyee sax yaakaar naa PCA bee mu nekk sax suy wax ak yenn saa yi mu gént sax tudd Karim wala yu demee noonu xam nga cofeel gi muy woote tey ci ab Ablaye du ak yu demee noonu moom dafa war a noppi ci ci kiiwu Karim nag wax dëgg yàlla parce que comme bàyyi nañu dem daf ci war a noppi ma ciy wax ne moom su ko wóoroon ne ko foofu nag laay ñëwee am tontoom ci li mu wax bu ko wóoroon ne xam nga boo nee du ma mës a topp ci ginnaaw nit loolu xas la suñu jigéen ñi bu ñu leen di jox exemple ci soxna Jaara sax day day wax ne nee na bu fekk jamonoon woon ak soxna Aminata moom mooy am yonent bi wala bu jamonoon te woon ak soxna Mariama moom mooy loolu mooy xas parce que kon yow la ngay def ci liggéey mooy tax nga man ne du ma nekk jamais ci derrière nit mais est ce que def na ko ci liggéey su fekkoon def na ko ci liggéey tey PDS Abdoulaye du am fitu joxañ Karim wala mu joxañ Bara Gaye wala mu joxañ keneen parce que moom bu ko waroon ne ko bi ñuy def Karim candidat di PDS parce que boobu bu ko wóoroon ne bu toogee ci taabal ji moo soxna Ayda Mbodj suñu bàjjan maa ngi koy ziar ak ñooñu suñ toogee tey di postuler ñooy gagné dañuy toog waaye taxaw rek ne du ma nekk ci ginnaaw kii dafa yomb loolu problème am la waaw loolu ci voilà